démb wax na ni seen référentiel bi am na ci trois axes yoo xam ni ñoom dañu def plagiat ci seen TSE e bi nga xam ni mhm. moom sax artisan la ci woon loolu c'est extrêmement important parce que nag wax dëgg yàlla euh, yow référentiel bi ak ni mu toll nga seppi ci len lu trois axes yoo xamante ni si nii kenn mënu ko contourner ci wàllu développement nga ni ci ñoom la lañ ko jëlee nag wax dëgg pour man loolu ay waxi ku daanu ci sareet la rek parce que nag trois axes yi muy wax moom boo bëggee développer sa réew mënoo fexe fexe ba contourner ko kon loolu euh, jàpp naa ne déjà ay waxi daanu ci sareet la kon ñoom bu ñu toogee ñu documenté leen jox leen documentation yi xam ne moom moo ci war yëpp kenn ku ne dem waajal sa bopp mm. boo dikkee boo waxee bu ñu déggee insha allah dinañu xam yëf yi yëf yi ndaka la fa féete ñi ciy buruxlu nag moom mm. euh, di di parce que ci <laughs> Alassane Sall ci seen mu ciy buruxlu lu tax danaa la wax lu tax. lu eh, tax nga ne xam nga man débat du am. waaw dama lay wax benn affaire. muy lan. xam nga keroog dañ fee toog. ma ne leen Ousmane Sonko da leen di déglu discours am. Mm-hmm. dafay orienté politique bi fi mu ko bëgg. keroog ba mu nekkee arena c'était pas pour rien mu attaqué Amadou Ba. pour mu da ko da ko da ko dóor benn pièce boo xam ni finalement. c'était pour génne ko ci ruqam. pour mu wax. encore que qualifié wu ma Amadou Ba de kaño maa ngi jéggalu damay joxe exemple rek tey kaña boo ko bëggee génne ci paxam. da ngay sotti ndox. sotti ndox mu tàng. <laughs> c'est-à-dire que il voulait fa Amadou Ba génn. Mhm. te Amadou Ba boo xoolee démb conférence am ak Amadou fi mu jaar yëpp il prenait trop de notes trop de notes. ça veut dire que c'était pas préparé dañ ne ko il faut nga génn mu génn sur les véritables interpellations yi ñu ko interpellé soriwu ci parce que quand pour quelqu'un boo xam ne depuis élection législative euh, présidentielle lu bari jaar fi ñu accuser la de corruption corruption magistrat yi mm-hmm. point boobu buggoon nañ ci am lu leer hmm. ñu wax li ñu wax ci falsifier affaire yi gis nga ni mu ko tontoo de façon hmm. évasive rapport am Macky gis nga ni mu ko tontoo de façon évasive ça veut dire que c'était pas préparé mais génn boobu mu génn mooy piège bi mu daanu parce que loolu la Ousmane Sonko tegoon comme piège pour mu génn léegi Ousmane Sonko nga xool ne mu ngi doon suivre de près hmm. Amadou Ba Amadou Ba dafay pare conférence de presse Ousmane Sonko di bind daal di koy déclarer nag un débat public affaire bi du communication moo la génne parce que communication dafay reposer sur du contenu ce contenu là reposer sur de la vérité loo mën a communique mën a communiquer te yow sa contenu bi nga yor sa ne repose pas sur vérité. Mm-hmm. tu ne peux pas convaincre. ñaata soi-disant chroniqueur ñoo nekk ci plateau yi il parle bien parce que parler bien et communiquer y une différence ouais. tu ne peux pas convaincre les gens à partir des mensonges léegi tey point yi nga xam ne Ousmane Sonko soulevé na ko est-ce que Amadou Ba am na un contenu reposant sur de la vérité pour pouvoir convaincre waaye c'est ça la euh, ça le problème hein? voilà yow yaa ngi jàngal sa élève mhm. sa élève dem ba ne la kaa ñu débattre li ñuy débattre mooy dangeen yàq réew mi et que du daa gis nañu fi ay élèves yu ñëw weddi seen ay maîtres man nañ les philosophes non c'est-à-dire que <laughs> Ousmane a du solide ah mhm. <laughs> a du solide nee nañ de léegi nag li mu ko tegal gumba ba saa bu la nee nañu xeex waaw li nag li mu ko tegal li ñuy wax couteau à double tranchant il vient. il est mort. il, est mort. nga gis ko dee mu gis la nga dee la wala ñu naan sëgg dee. xam nga <laughs> li ma doon wax démb ci politique yi Ousmane Sonko. oui. cest à dafa yor ay coups de yoo xam ne bu la ko laalee rek bi jeex. c'est-à-dire que dafa am ay coup de kaw yoo xam ne Ousmane moo la gën a wóor ne Amadou parewul pour débattre mais li mu teg nii li mu teg nii mhm. la mu waxoon ca ba mu nekkee prison ba gars yi ñooy naan ko waa mais nu ñuy def ak suñu nu ñuy def est-ce que on aura un candidat est-ce que dinañ kii mu ne leen li ma lal Macky Sall mënu ko teggi yéen dem leen rek ngeen def seen travail sur le terrain un proche bu ko seeti woon loolu la ko wax mhm. c'est-à-dire que il il prend le temps il réfléchit ouais. c'est-à-dire que il n'est pas nekkul comme gars yi nga xam ne dañuy telli telli rek quoi. lu mu def di seetaan cinéma ba si àgg jékki-jékki di nelaw nga jékki-jékki public bi yuuxu rek nga nekkuñ rey nekkul ci loolu il reflète c'est-à-dire que c'est-à-dire que euh, le sérieux même sérieux ci ci Ousmane nga koy xam c'est-à-dire que il prend la politique trop au sérieux léegi nag le fekk mu demandé ko débat mm. Mm. dafa am ay conséquences. bu ci njëkk bi mooy démb à partir de benn phrase ay phrase yu mu bind ci page am évacuer na le débat Barthélémy Diaz évacuer na le Bart le débat Bougane Gueye mm-hmm. démb boo xoolee guddi géeg tey ci suba yépp débat ba ñuy débat Ba la wax mm-hmm. donc donc pourrir na débat bi gars yi bëggoon yëkkati ci bugaan bu ñu tëj ak Barthélemy bu doon saaga ak affaire yooyu jël na ko évacuer ko léegi lu gars di wax. débat Amadou Ba. Sonko Sonko. deuxième conséquence bi mooy candidats yi nekkoon ci yeneen candidats yi nekkoon yëpp war a compétir suul na leen parce qu'on va plus parler d'eux on va parler de Sonko Amadou Ba Sonko Amadou Ba Ba. Hmm. d'accord moo tax nag sorti bu mel ni sorti euh, Amadou Ba non taas Thierno Alassane Sall dinañ mais mais li tax mu def sorti lay wax je mm. vais pas entrer dans le continuer mais li tax mu def sorti il a compris que <laughs> act bi Sonko posé mm. daf ñoo tuer ñun politiquement parce que on va plus être au devant de la scène on va plus être au devant de la parce que démb ak tey yëpp lan nga dégg ñuy wax. débat public Amadou Ba. débat bi dafa war a am dafay doxal démocratie. Mhm. Amadou Ba la ñuy wax. ak Sonko cest dire que ah boo yegsi woon Sénégal tey tey tey da nga naan ñaari coalition ñooy dem. ñaari parti ñooy dem législative muy Amadou Ba di Sonko rey na ñeneen ñëpp. ensuite si Amadou Ba accepte. Mm -hmm. le débat. il va changer pour de bon wala ce sera une première ñu gis Sénégal am léegi un débat à l'américaine. Mmh. non seulement saawaay dafay saay xoolal non seulement dafa xam nu muy éliminer ay adversaire am mais acte bu mu teg rek c'est une innovation ci paysage politique bi tey lan nga dégg nit ñi di wax non dañoo war a def débat Sénégal dafa war a dem ah waaw ah. mais déglu ma il a il a mhm. fait exprès il a fait exprès pour dégg loolu li nga wax xoolal dé xoolal sa sortie ni mu communiqué maanaam moom jamais mu tudd Bougane buy wax da nga xam ne Bougane lay lay wax eh, mais du ko tudd parce que day waree na ni kenn moom du nawleem non ñi ñooy ñi ñooy ay fan ngay xamee ne pare na ci ñoom pare na ci mhm. ñoom te Pastef on on réfléchit sur ce schéma là mhm. Ousmane Sonko bi mu waxee débat lan moo ci tegu Jean Michel moo bind lettre ne day invité Thierno Alassane Sall. à un débat public. waaye parce que tamit Thierno Alassane Sall dafa bëgg. non mais Jean mais. débattre ak ak Ousmane Sonko du man ma man maay ndeyu mbi xam mbir mi nu mu demee man la scandale. dafa bëgg sa morom. yow ci niveau bii nga toll nii. ñun nga yemal. ñun ñoo yemal. en plus nag moom moo xam. ñu ciy pare ma dégg ñu ne Khadija Mayekor mu ngay invité Barth euh, Barthélémy Diaz. ci débat ci débat <laughs> mais les gars de très politiquement dangereux. xam nga ñoom dañuy politique te foowuñu ñoom ils sont pas dans. dans dans dans. dans des lépon-lipona. ils sont pas dans l'émotion caaxaanewul. voilà ils sont pas dans l'émotion ils sont pas dans l'événementiel lii moo xew rek nañ tëlli tëlli rek dem ñoom dañuy toog di réfléchir di anticiper di poser ay actes yoo xam ne fu ñu ko poser rek changer le débat politique. Hmm. c'est ça aujourd'hui la force de Pastef Pastef mooy définir l'agenda politique ci li mu bëgg nit ñi wax. ci loolu la ñuy wax ci li mu bëgg nit ñi dox ci la ñuy dox. ba ñu dem ci cëppaandaw ga balaa ñoo comprendre ne dóor na leen jam wiiri fekk affaire yi na fi mu nekk nii après petit poli petit politicien yi après ñooy nekk di wax Bougane kii mais gis nga le débat sérieux aujourd'hui bi nga xam ne moo judd à partir de démb mm-hmm. mooy il faut qu'on arrive ci foo xam ne buñ fa Sénégal dafa war a organiser des débats à l'américaine te gaa yëpp ci la wax de. mais ma jàmbal ay auparavant waxoon na benn wax ni Seneweb su ma juumul euh, jël na engagement su Ousmane Sonko bëggee débat politique ak Amadou Ba mën a am. acca waxoon na ko. su su su ko defee mu mu génn xam nga xam nga foofu. voilà pour pour rejoindre la foofu noonu maanaam euh, Amadou Ba jamono ji